Senghane Senghor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Ndeye Comba. voilà Senghane Senghor nga nekk euh, chargé des affaires juridiques et de la protection à la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme euh, déjà ban euh, jàngat ngay def ci manifestation yi nga xam ne ñoo am ci réew mi fan ba indi dégâts yu bari ay nit yu bari aussi daal di siy ñàkk seen bakkan. manifestation yi de xanaa Ndeye Comba naqar lu ci xew. métit lu ko parce que buñ mënoon di régler suñuy problème te manifestation violente du am dana gën dana gën ci ñun gën ci Sénégal gën ci image bi ñuy renvoyer extérieur mais gën aussi ci suñuy doom ak suñuy am-am malheureusement li xew xew na ba pare ñu ngi jaale njaboot yi ci ñàkk seen doom di wéccu li xew di regretter aussi réccu yàqu-yàqu yi ci bari parce ay milliards moo yàqu bés boobu wala ñetti fan yooyu ci Sénégal te loolu yëpp ay milliards yu xejoon ci ñun la parce que ñun dañoo nekk réew mi ñu tabax mu war a jëm kanam kon bu ñu tojee yàq taal c'est parce que dellu nañ gannaaw quelque part mais li gën am solo parce que loolu am na ba pare mm. moo nañu xool nan la ñuy waxtaanee pour tegaat yëf yi ci yoon mën a déggoo ci fi jëm régler problème yi nekk ci kaw table mais euh, naka nga gisee euh, njiitu réew Sénégal kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati jëmale ko ci manifestation yooyu nee na sax dinañ ubbi ay enquête pour xam ñi si faatu ci yan euh, condition lañu faatoo ñu mën a situer les responsabilités loo si xalaat li njiitu réew mi wax. déglu nañ njiitu réew mi li mu wax mais manifestation yi dafay soulever plusieurs volets dafay soulever. lu mel ni volet social lu mel ni volet médical mooy ñi ci gaañu te nekk fi mu ne ci biir hôpital yi ñu leen di paj nga xam seen faj dafa laaj koppar dafa laaj am am gu ci war a dem maintenant nag ñu ñëw aussi ci ñi ci faatu parce que ñi ci faatu war nañoo lijjanti comme ni mu waxee ubbi ay enquête pour xam lan moo leen faat ak lan moo tax loolu d'accord nañ ci ak moom bi mars deux mille vingt et un li fi xew amee ñun dañoo mos di wax ba fukki fan avant événement yi di xewaat nii ñun wax lañ ci benn rajo ne mënuñoo nekk ubbi enquête pour xam lan moo xewoon mars deux mille vingt et un doon na permettre benn ñu xam li xew mën te tirer leçon yi bu amee mesure yi ñu war a jël pour du xewaat ñu jël ko bu amee ñu ci war a sanctionné sax ñu def ko waaye malheureusement ba léegi gisuñ ci benn résultat dégguñ ci benn résultat malgré dige yi ñi ci gaañu nekk ci hôpital yi ñu war leen faj. Mhm. état bi daf leen war a jël en charge totalement et sans distinction pourquoi parce que tey kenn mënut laa wax ne ñu gaañu xëy na am na ci ñoo xam dañ doon manifester parce que dañoo bëgg démocratie bu dëgër mën nañoo bañ a am sax dëgg mais ay sénégalais lañ benn ñaar mais am na ci mën na cee am ñoo xam dañ leen gaañ par inadvertance parce que ñoom manifesté wu ñoon xëy na dañ jàng bi di wàcc dañ doon romb gaa ñu fekk leen ci parce que dañ nekkoon ci milieu buñ waruloon nekk à cet instant là xamuñ woon na ku mel noonu bu gaañoo mais mënuñ ko bàyyi ay mbokkam mbaa ñu bàyyi ko ay ay bonne volonté moo tax état bi na jël ay responsabilité am te mu góorgóorlu ñun ñëpp mu jàpp ci seen faj dañu dellu seen kër yi li ñuy régler après ñu mën koo régler léegi affaire euh, nervi yi tamit coow li bari na naka nga ko daal di gisee mbirum nervi yi euh, opposition beeg état bi ku nekk yaa ngi koy jiñ sa moroom. non opposition bi mënul am nervi en tout cas nervi yi ma gis man ci ci ci vidéo yu bari yi ma partagé opposition bi mënuñu koo am parce que opposition mënul am nervi bu yor ay fetal yoo xam ne amul këyit. loolu mënul nekk parce que bu amoon dañ leen di désarmer bu amoon ñun ñii ñoo ko du nangu ñun ñii nekk ak ñoom ñoo ko du nangu parce que du nekk suñu sécurité parce que li xew mooy lan li xew mooy ay civil yu ñu recruter armé leen ñu ñu jox leen ay gourdin ay matrak ay nangam pour que ñuy régler yeneen civil loolu dafa dangereux réew yi yàqu yëpp loolu moo ko yàq parce que civil bi régler moroom mi civilam parce que civil boobu tënkuwul ci loi te man am na loo xam bu ma ko sa morom yi civil bëggee teg damay xool lu may def ba fayu kon pour ñu bañ ñu fi andil luy jur xëy wante na état bi jël ay responsabilité mu arrêté question nervi yooyu nervi yooyu mooy ñu leen gisee ñu ñu wax lañ leen di tey nervi yooyu ñi nekk ci opposition bi buñ amoon moyen sax xam naa ni doon jël engagement yooyu parce que ku ko ci jël mën na laa yóbbu kaso loolu mooy dëgg bi jox nañ ñu ay turan léegi euh, si dialogue ba léegi njiitu réew Sénégal nee na sax euh, bu ñu paree si dialogue bi fii ak 20 juin moom dafay def adresse à la nation yéen lan ngeen di xaar kon si discours boobu. loolu baax na lool dialogue bi forcément bu paree am na lu ko war a sanctionné loolu moom luñ prévoir woon bu yàgg la mais dafa am lu fi xew bees lu fi xew bees mooy li fi xew jeudi vendredi ak un peu samedi bii président dafa ubbi dialogue la veille mooy mercredi trente et un le lendemain événement yi am kon ñaar yi dinañ mën a tëkkale li xew mooy deux mille vingt et mars bi mu amee quatorze morts la amoon ak ay dégâts yoo xam tolluwuñ ni dégâts yi président génn def discours na mu ko defee woon ñun jàpp nañ ne noonu la ko war a defee ci biir génn wax ak sénégalais yi dalal xelu sénégalais yi dalal xelu ndaw yi parce que moom lañ dénk Sénégal dafa am information yoo xam ne am discours officiel solennel boo xam moom rek moo ko mën a porter mu dalal aussi xel yi ñi fi nekk te duñ sénégalais mais dalal aussi xel yi ñi nekkut Sénégal sénégalais te di fi ñëw ñuy di fi investir sen xala seen xaalis ainsi de suite parce que sinon li xew mooy li nag conséquence bi mu nar a am ci économie bi moom moo dul baax kon loolu amul benn relation ak dialogue politique ci suñ gis kon yéen xanaa dialogue bi Senghane yéen waa RADDHO dañ leen si woowul wala nu mu demee noonu. en fait xam nga dialogue bi dañoo reconduire commission yi ñu defoon ba mu ubbee dialogue bu bu njëkk ba te ñu arrêté woon ko deux mille vingt. dialogue booba radoon ci woon mu ngi woon ci commission yi. parce que démb sax secrétaire général bi nee na ma euh, président commission yi ñu ngi woote pour que ñu rejoindre ko. mais ubbi ouverture dialogue bi mooy cérémonie bi ñu def bi ubbi dialogue bi invité wu ñu nee nañ ñu président def ñu mere parce que membre yi F24 lañ ma jàpp président ak service am yi beneen yoon nañ mooy tuddi def noonu parce que dialogue bi ñoo ko tuddee national boo ko tuddee national da ngay oo ñi nga yaakaar ànd nañ ak yow ak ñi nga yaakaar ànduñ ak yow loolu mooy inclusion société civile bi nekk F24 muy ñun di Ligue sénégalaise di Amnesty di di Asafula di Afrikajom Africtivist Raja FRAPP Yanama ñoom ñëpp ni mu invité yenn parti yi nekk f quat am ñu dem ñuy demuñ noonu la ñu waroon yónnee lettre d'invitation bàyyi ñu ñu jël suñ responsabilité parce que dañ ca am cër bi ci ñeneen ñi am parce que ñoo ne il faut ñu xool souvent bu ñuy teg acte yan acte la ñuy teg nañ bàyyi di sëywantee li ñu bokk moom ko kenn ëppale wuñu ci loolu vraiment bokkul ci luñ rafetlu bokkul ci luy defar Euh, Senghane beneen laaj peut-être dernière moom mooy euh, yéen réew mi ngi nekk ci fitna ak tension bi fi nekk ñuy xool naka la ñuy indee jàmm F24 ngeen continuer di tenir ay ay ay ay manifestation comme suba ni ngeen ko bëgg a defee euh, ci samdi bi ci VDN bi est-ce que tamit loolu yenu na maana Senghane xam nga manifestation pacifique lañu wax ñun mooy manifestation boo xam ne amul toj amul xeex amul lakk amul dara pacifique manifestation pacifique ci histoire li tax ñu dugal ko ci constitution yi dugal ko ci texte internationaux yëpp demandé état yëpp ñu adopté ko dañoo gis ne daa bokk ci luy indi jàmm parce que nit ñi bu ñu weree nga bàyyi leen ñu génn dem daje fenn ku nekk wax li la naqari mu paree dañuy ñibbi tranquillement seen kër yi d'ailleurs réew yi mu am yëpp duy bari xeex du bari problème kon ñun jàpp nañ ne instant bi ñu toll nii bu ñu bëggee manifester les manifestations pacifique lañuy ñuy def li waroon nguur bi bu bëggee jàmm te it bëgg apaisement comme ni mu koy waxee bi ñu ñenn ñi ne nañ def nañ def lii nañ def lañ mooy ñu autoriser ko te encadré ko ñu manifester bu ngoonee ku nekk ñibbi sa kër lu ciy topp mu topp ci ñun loolu ci lañ leen woo loolu mooy bu njëkk bi mais beneen bi mooy F24 dafa amoon dafa am plan d'action boo xam ne moo jiitu manifestation yi xew plan d'action boobu partagé nañ ko plan d'action boobu ñun niñ ci déroulé gu ñoom amul lenn ñun ñu ci mën a reproché lu ñu toj wala ñu yàq ko kon exactement parce que li xew détag yi am ça n'a rien à voir ak suñ manifestation loolu Ousmane Sonko lañ amal problème ñoo xam nuñ def de créer seen problème ak Ousmane Sonko ay militant bi ko réglé ak ñoom COPPA F24 bi ñun même bu dee Ousmane Sonko membre du F24 la kon F24 bu ootee manifestation jàmm ñun jàpp nañ ne waroon nañ ko autoriser loolu de loolu daal mooy ñaari aspect yi nga xam ne vraiment mën naa ko cee wax mm-hmm. te fàttali leen nag ne manifestation de violence voilà kon Senghane Senghor euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waaw maa ngi leen di sant bu baax merci beaucoup. voilà di fàttali ni yow yaay chargé des affaires juridiques et de la protection ca rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme